man nag Ousmane Sonko bett na ma senegal boo gëmul yàlla duñ la ko mës a jox. Ousmane Sonko député dafa génn démb wax wax ju doy wax joo xam ne man daf maa yéem ci mitin bi nga xam ne mi ngi ko amaloon place de la nation mbootaay bu takku nit ñu bëri ñëw wuy ko ci mitin boobu. Cheikh Yérim daf ko posé daf ko laaj benn laaj laaj bu yomb mooy nekk Ousmane yow ndax Ibadu Rahman nga loolu bañ ko laajee laaj bu yomb la pour man Ousmane Sonko mënoon na wax rek ne waaw Ibadu la wala mu ne Cheikh Yérim laaj boobu waruma ko laaj xam nga yow lan nga ma a laaj ndax julit la ma ne la waaw man jullit laa wax ji jeex jullit nag mooy ku julli. man noonu laa ko jàppee mën na nekk catholique mais daal na nga gëm yàlla waaye Ousmane Sonko yemul foofu moom dafa ne li ko yitteel mooy Sénégal baax léegi nag ngir Sénégal baax waruñu xool ndax ci tijaan la wala murid la wala ate la wala chrétien la wala témoin de Jéhovah ate nag ba mu waxee ate man foofu laa jommee ndax athée mooy ku gëmul yàlla Ousmane Sonko nee na yow bu fekkee ne jub nga sa loxo na baax yow war nañ la mun réew mi teg ko ci sa loxo même bu fekkee ne gëmoo yàlla sax war nañ laa mën a jox réew mi Ousmane nag foofu nga juumee foofu nga juumee Sénégal boo gëmul yàlla duñ la ko mës a jox sama jabar dafa ne loolu nan la mën nekkee ku gëmul yàlla nan nga mën a baaxee ñun dañoo jàpp ni senegal boo gëmul yàlla rek baaxuloo ndax bu dee suñu boroom mi ngi xam ne moo sàkk lépp sàkk adduna bi sàkk la yow gëmuloo ko lan ngay gëm mënoo baax ñun loolu lañu jàpp. senegal li tax mu baax mooy sëriñ Touba bi fi jaan El Hadj Malick Baye Niass Bou Kounta Serigne Limamou ak ñeneen ñeneen Cheikh Omar Foutiyou. looloo tax Sénégal baax ñu loolu lañ gëm du ñu mës a yëkkati Sénégal teg ku ci loxo nit koo xam ne gëmuloo yàlla Ousmane Sonko bu fekkee ne yow loolu nga gëm gëmal ne doo mës a nekk président ci miim réew jamais de la man nag Ousmane Sonko bett na ma ndax man dama yàgg génn di wax ne xale yi man dama leen naw ku ci mel ne Bougane ak usmaan Sonko dama leen naw ngir dañoo nekk ay xale yoo xam ne dañoo ñëw nekk ay defkat. entrepreneur ñëw jéem a jàppale seen réew di xeex ñu fi nekkoon ñu fi yàgg nguur bi di xeex système ñoom loolu la ñu wax ma yàgg ko naw ñëpp xam nañ ne Macky Sall laay militaire waaye terewul yàgg naa génn di wax na Bougane man li muy def ànd naa ci na na jéem a dugg ci politique xale yi dañoo bëgg mu dugg ci politique Ousmane Sonko bu ñu sañoon Youssou Ndour dafay gën a defar fekkee ma ci boole waaye nag Ousmane Sonko loolu moom. ni ma la nawe woon lu ci bëri dañ na te dugal nga sa bopp ci kàmb boo xam ne doo ci mën a génn.